C'est la plateforme des acteurs et de la citoyenneté du travail et de l'émergence du Sénégal président Benoît Samb moo dajale artisans yi dajale jeunesse bi ànd ak famille, mobiliser au niveau de Pékin Ouest Pékin Est Kër Massar macha allah Dakar partout objectif de élire son frère, le candidat de Benno Bokk Yaakaar, monsieur Amadou Ba au premier tour et à 58 pour cent citoyen yu nekk fii maa leen di woo affaire de retenue ñëpp xam nañ suñu candidat ci dal ak yar ak teggin muy monsieur Amadou Ba lu ñu bëgg mooy ñu dem retirer carte yi si jàmm ñibbi si jàmm ku gis nañ dañu ngi ñëpp xam nañ ne les élections sont déjà gagnées par le candidat monsieur Amadou Ba kon ñun jàmm la ñuy woote ak salaam élection jiwaa bi may woote mooy na